jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen site bi di wasaare ak Dakar Midi amaat nañu mbégte ak kontaan te jàkkaarloowaat ak yéen comme ça su nekk ni ñu koy defee nee naa leen xew-xew bu am nag dañuy préféré li nga xamante ne moo di yi ñu génne dañu tëjoon fi nga xamante ni moo di waaye tey ci suba bi ñu yeewoo dañoo gis li nga xam ne moo di ICI daal di ànd ak koy takk der daal di dem foofu nga xam ne moo di si buntu euh, D-Média comme nag ñun dañuy préféré saa su nekk waxtaan ak askan bi moo tax ma ànd seeg sama caméraman bu ñaawul bii rek fas yéene taalal askan bi sama micro daal di siy waxtaan ak ñoom ñoom tamit ñu daal di siy wax seeni xalaat abu sama caméraman bi bu baaxee rek ma daal di dugg gise gaay yi <laughs> salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la ñu nangu ziar yaa ngi si jàmm alhamdulilah noo tudd waaw. Mouhamed tey ñuy waxtaanee bureau ki nga xamante ne ni moo di Bougane Gueye Dany gis nañu keroog euh, fan yi nu génn ñu daal di tëj li nga xamante ne ni moo di ay kontam tey bi ñu yeewoon nag dañu gis li nga xam ne moo di ay IC ànd ak ay takk der daal di dem foofu en tant que sénégalais yow naka nga gisee loolu. ah di ko ñaawlu rek di ko ñaawlu wax dëgg yàlla parce que ñu ne ba ñu xëyee suba ñun wax dëgg dëgg yàlla télé la ñuy déglu rajo bi bokk waaw mais liñ ci dégg dëgg yàlla ñu ngi koy métti lu donte mënuñ si dara waaye di ko métti lu rek waaw. waaw jëf jooju moom nekkul lu rafet parce que lum mu dee dee bugaan doomu réew mi la te aussi citoyen la sénégalais la parce que bëri na ñoo xam ne ñu ngi liggéey si moom ay employé yoo xam ne si si loolu ñu ñu ñu tëjal bugaan si yaakaar euh, dimbali seen i doom seen i njaboot seen i dund te loolu moom deftul bu dee def nañ ko tamit defuñu lu rafet. parce que nekkul lu rafet parce que bëri na ñoo xam ne si bugaan bugaan bëri na lu muy def si dëkk bi loo xam ne si am na ñoo xam ne sax ay borom baat lañ si dëkk bi te defuñu fi dara te lu mu dee dee ñu xool si ñi nga xam ne si ñooy employé am di liggéey ci ñoom même bu ñuy def xooqtal bugaan nan bañ a def loolu nan def entre ñoom ak bugaan mais ñu bañ see dugal loolu parce que bugaan loolu lu mu dee dee ay famem si lu ñuy dund mu si jàppale ñeneen ak ñeneen loolu moom nekk na loo xam ne lu rafetul la doon citoyen comme citoyen doon sénégalais comme sénégalais rek mu doon jëf joo xamante ne nii ni mu naqaree leen yi noonu la ñu naqaree ñun ñi ndax lu bon bon jàng nañ am na lu ñu xam. ñëwee tey ngay responsable di kilifa war nga mën a am neneen noo ko seeree lu bokk ak nii ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañ pour ñu mën a jël ay takk der du ko yebal ci entreprise jàmbur boo xamante ne tey ña fa nekk ay ñaari nit ñett lan te kenn ci yow rek mënoon na dem seere lool te coow du jib mais dëkk bi dafa am loo xamante ni faaw ñu wax ko dafa am ku mu am ndey ak ku mu amul ndey di fat doom di làq doom yooyu moo taxawul nañu jox cër ñun Sénégalais li ñu moom lépp loo xamante ni suñu droit lañ ñu war ko kaas ñu ñu koy jox ñu koy kaas mais di di jël nit ñoo xamante ni tey ku wax nga ne doo ko fi waxee ku kaas nga ne waroo kaa kaas loolu taxawul nañ ñu respecté ñun Sénégalais yi. kóolute moo taxoon jël ko jox ko suñu réew bu ñu demee ba gis ñu confiance boobu nañ koy yëkkati joxaat ko keneen loolu moo fi nekk affaire bu affaire burange yi gaan de affaire sénégalais yi la. alhamdulilah rabil alamin ngir lan euh, bugaan yàlla daa def nag si réew mi la bokk te taalibi la mu am gëm-gëm loolu te am yërmande te yàlla nag daa bëgg ki nga xam ne tey jii lam lay jox nga si dimbali jaam ndax que yàlla du wàcc di joxe da koy jaarale si doomu aadama te bugaan àdduna xam nañ ne moom. social yi nga xam ne tey jii maa nga ca di ko def te yàlla kese tax dimbaliwu gis kiy dimbaliwaate nga ne doo ko fi dimbaliwaatee yaakaar naa bëgg faat doomu aadama ak askan mënatul weesu lu mel noonu yàlla ba muy def nag yàq eggu fa ba nga bëgg yàq ànd leen si xel mu dal te xam ne kii yàlla su boppam moom moo koy taxaw insha allahu rabbi ndax parce xoolal tey jii ñaata père de famille ñoo fa nekk di daan seen doole di jël di yóbbul seen i famille booleeg di deflaale seen i dëkkandoo ak seeni i mbokk yow nga war a yokk employé nga ne da ngay sëxanal wala di nëxasal li nga xam ne te ji mooy employé yaakaar naa loolu yërmande amatul si côté boobu daal. parce que Sénégal dañu waxoon mooy suñu gaal nañ leen ànd joowandoo waaye Sénégal gi nag man jàpp naa daal euh, Sénégalu gerte la la dañuy xool yi rek daal waaw yërmande daal. gis naa ne daal mu ngi fiy bëgg a euh, daal lompañ te loolu warta mënta am. lu ma ci jàngate ci loolu damaa ne wàllu la ko parce que Bougane Gueye doom réew mi la ci réew mi la bokk bu ñu bloqué kontam ay centaine de millions doomu adama mu ngi fa doon dundu ñun ñeen ñuy dawal ay moto tey bu ñu amee soxla pour jënd moto mun nañ dem ci Bougane ñu ne la ko may ñu may ñu ñu jënd moto lu ñuy liggéey parce que bu ñu defee clandestin gars yi dañuy ne baaxul. te mënoo nekk ci réew mi nag boo xamante ni réew mi yoonu la ñu ne la doo fi liggéey ci réew mi foo teg taabal ñu dindi ko encore ñuy jox nit ñi pour ñu jàppale seen bopp ñu ne la dañ koy tëj ay kontam wala ñuy tëj ko ñu xool loolu nangu loolu loolu moom président Macky Sall dañ la koo ñaan ngir yàlla ci yeneen bi nañ ko bàyyi waaw nañ ko bàyyi moo gën ko loolu moom képp ku ko dégg moom en tant que doomu réew mi bu fekkee ci Sénégal nga dëkk moom ah war nga jug naqarlu loolu ndax ñun ndax ñun. Euh, Bougane Gueye Dany moom wax wax dëgg fa yàlla ñoo na ba yëmbal man yëmbal laa dëkk gis nañ suñu maire yëpp koo wax mu ne Bougane Gueye ko wax mu ne Bougane Gueye léegi kon takk dere bu ñëwee bëgg a def lool loolu ñaaw na torop en tant que doomu réew mi ñu bëgg a tëj ay ay employé am loolu rafetul loolu rafetul ci gis-gis loolu rafetul wax dëgg fa lool loolu moom rafetul loolu moom ñun ñëpp ñu ngi koy ñaawlu ñi ngi koy naqarlu ah liñ bu fekkee nag ñun jeunes yi lu ñuy woote dëggal su ñun war nañoo jóg ñu taxaw Bougane Gueye Dany parce que ñun amuñu kenn ku dul Bougane parce ñun ay jeunes lañ te ñun dafuñu xamee nañ xamee nañ lu baax suñu réew ah man daal Bougane laa wax. metti na lool ci ñun Sénégalais yëpp nag parce que Bougane moomul foofu ña fay liggéey ñoo ko moom ña fay liggéey ñoo ko moom ak ñun ñu koy déglu ñoo ko ñoo moom foofa kon li ñuy def nañ ko nañ tegg seen tànk xam ne àddina bi ñoo ko bokk tey yow ëllëg sa morom loolu laa xam nga yàlla loolu moom daa ñaaw moom. waaw parce que Bougane doomu réew mi la. waaw en plus tamit ci dëkk bi la dëkk waaw kon gars yi war ñoo mën a doxee ak moom neneen pas loolu noonu parce que dëkk bi moom ku nekk li la metti da koy wax waaw ku nekk tamit li nga xamante ni yaa ngi koy jànganteel am nga droit wax ko mais Bougane moom li ñuy gis muy doxee jaamu yàlla yi loolu moom lu naaj la ko waa amuñ gisuñu si lenn lu ñaaw waaw ñu ngi koy ñaanal mooy ci kaw ci kanam ci lu baax waaw tam tamit askan bi waaw ñun moom lañu àndal waaw ñun moom lañu àndal waaw mais tamit waaw lépp daal fair la gaay alhamdulilahi rabbil alamina sant yàlla bu baax a baax te bugaan it na sant yàlla ndax bugaan senegal defe naa ne bu ñëpp meloon ni bugaan senegal avancé na bugaan télém bi tele doomi aadama yi la bugaan bi mu defee tele bi defalut ko boppam ñi cay liggéey ak ñi ci liggéey yëpp man mii ngay gee fajar lay xëy jàpp télé bugaan kam la xew ca réew mi damay nekk fii be Saalum fi ma dekk damay koy fajar dàpp télé bugaan xam lu xew ci réew mi te ñëppay xam lu xew ca réew mi te doomu réew mi ñooy liggéey ci tele bugaan wax dëgg yàlla politique bugaan moom boolewul ko ak tele bi bugaan ak politique télé bi ak waa Sénégalais yi man de bu ma sañoon xaw ku fekke feke bii waaye na ko teg ci suuf ndax bugaan day dimbale askan gi man de waat naa ko ci yàlla bu ma doon sànnil sama karta billahi wallahi tallaay bugaan laa koy sànnil bugaan nag moom leneen lu muy def fay na moom moom la engagé quoi waaw ah, waaye nag buñ jël euh, yat bi ñu war a dóor bugaan bu ko dóor euh, ña fa nekk ñëpp waaw bu boobaa day gaañ conseil jox mooy mooy ñi koy def moo xam bi la jógee la muy def na ko xoolaat bu baax waaw ah, ndax nit booy def dara da nga ko war jur gaañ nga jëm ko bàyyi moo mooy mooy lu wóor daal waaw. Euh, politique bi seen yoon nekk si ñoom parce que ñoom seen liggéey lan lan am seen liggéey lan am muy tele bi am dara lu war a génn lu askan wi di di jooy ñu ñëw génnee ko loolu mooy yoon ñoom loolooy seen liggéey ñun loolu ñoo leen si war a jàppale. parce que méttiwul nga ne dafa métti nga nekk si naaj bi yor micro di dox lu métti askan mi nga taxaw si ko kon askan wi dong moo ko ñor mais tey bu ñu jëlee di tëj leneen di tëjal bugaan ñooñu tamit dañuy sonn te mënuñoo wax ne dëkk bi. amul liggéey amul dara ba pare ñuy tëjal ñi nga xam ne ñooy liggéey léegi ñooñ bu ñu tëjalee bugaan fu ñuy jëlee loon dundee moom leen rek laa mooy employé nan nan jàppale bugaan bu baax te xam ne bugaan nit gënu ko te man moom bu bugaan sànni woon carte pour bëgg a nekk président moom laa koy jox man lay affié maa ko su ma ko teg mooy si bugaan lim ma wan ak li muy jàppale nit ñi man loolu doy na ma. c'est nit koo xamante ni mbiram la moog bugaan. du Mansour Diouf du Ahmed Aïdara ndax ñooñu seen liggéey lañ yor dafa liggéey comme man ni ma yor sama liggéey di ko liggéey kon waroon a mën a seere ñoom ñaar seen diggante li ñuy seere kenn du yëg mais buñ ci jëlee jël ci père famille yoo xamante ne tey ak yaayi famille yoo xamante ne ci ñàkk seen liggéey père seen liggéey xam nga loolu amul sens kenn ku ci nekk war nga am lu nit ñun ñëpp bokkuñu gis-gis kii da ngay waxe fee kenn gis ne kii xalaat noonu la demee Sénégal noonu la war a demee mais yow bu amee xalaat doo ko wax boo ko waxee ñu la doo ko fi waxee loolu du Sénégal nañu dimbali ci yooyu gayeen ku mu góorgóorlu ci lim nekk te xam ne du ci wet xeex bi du moom de mook Sénégal yi la te bis dana ñëw barke Serigne Salim Mbacke dana ko teg ci aw yoon lépp ay leer wallaahi li nga xam ne tey jii mooy ñi nga xam ne tey jii nit ñi am nañ si ñoom yaakaar muy kilifa yi war nañ taxaw seetaat mbir mi càmbar ko waxti sa yàlla tax tax xam ne vraiment Bougane ay doomu jàmbur la yor doomu jàmboo yi dañuy yor ay njaboot war leen di leen si dundal kon nañ leen bàyyi ñu dundal njabootu jàmbur yi boo dundul njabootu jàmbur nag bu leen xañ la nga xam ne tey jii mooy sàkk ga ñuy dundee man jàpp naa ne sàkk ga lay jëriñ bés boo ko bëggee toroxal yow yaay torox. liggéey lañ séq ak bugaan ndax parce que liggéey dafa bokk si jaamu yàlla ñoom ña ngay liggéey. Bougane si li muy def nii moom la concerne xëy na gis na ne réew mi laaj na jubbantiwaat mu war a mun a ñëw taxaw xool la nga xam ne tey ji ëllëg askan bi ñu ngi koy jooy amaam na mu am si gis-gis bëgg a saafara lu man jàpp naa ne looloo si dugal Bougane Gueye waaye du alal ndax parce que tey ji li ko yàlla wërsëgal rek mën na see dudd ba nga xam ne tey ji yàlla saa koy moom nga xam ne moom la mu waroon am am na ko ba pare waaye li muy def nii du pour moom ñi nga xam ne ñi ngi ñëw ak ñi fi nekk ñoom la bëggal liggéeyal kon nañ ko may sansam bàyyi ko mu liggéey te xam ne réew kenn rek moomu ko réew ñëpp a ko bokkoo lu ñëpp bokkoo nag kenn ku si nekk da nga siy dugal nag ab loxo waaye nag lu ñëpp moom nga ne kenn du dugal loxo man rek ay dugal loxoom bu yàggee dafay xaw a sax paax ndox te waaw. noonu seen yoon nekku ci. bu mu jotee bu bu bu ñëw bugaat la mais liggéeykat lañ leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey am lu ñu yóbbu seen kër am lu ñu yore te bu leen bàyyiwul du baax nag góor si bàyyi la muy def waaye yaay booy na ko bàyyi. xoxotal bu ñu koy xoxotal ay yoon employé si yoon employé war nañ ci nekk parce que ñoom ñoo leen fay ñoom ñooy daan seen doole ba pare mu fay leen te yoonam mu ngi ci waaw mais pour man tey su ma nekkoon di liggéey ak Bougane ku ko dal rek nga xam ne dal na ma waaw dinaa ci taxaw. temb ñu ne leen ah lii de warul am parce que ñun ci la ñuy dund waaw di leen ñàkk loo fayda xam nga ñoom daal di dañuy nekk seen liggéey wala waaw ñun tey du ñuy dawal ni ay moto yi dañuy tasaag yi ñu ne leen indi leen kay di ñu indi wala tey bu ñu amuloon kat lan la ñuy def du dañuy desere kon ñoom seen yoon nekku ci bugaan daal nañ ñaan mag sel maam nañ ko ko bàyyi. bu amoon conseil boo koy jox ban eh, bu may conseillé bugaan. lépp lu yoon war a def nañ ko def mais ci réew mi la bokk warul bàyyi mu seddee noonu quoi daal. looloo ma gën a metti ndax am na ñoo xamante ne nii maanaam daa am ñu yaakaar ci ñoom Bougane Gueye tamit am ñu yaakaar ci moom ndax tey jii bu buñ tëjee emploi am loolu dina metti lool. loolu dina métti lool ndax am na ñoo xamante ni fa la ñuy liggéey da yóbbu seen kër ñu bëgg a tëj emploi yi ah loolu moom rafet rafetlu ma ko loolu moom wax dëgg fa rafetlu ma ko. donc ña fay liggéey nañ muñ te xam ne lii yëpp day jeex. loolu ya loolu day jeex tàkk sax day jeex nañ jéem a négocier ba affaire yëpp jeex rek mu jeex takk ñu muñ bu dee ay jàppante Bougane Bougane président la mais Bougane ak ñooñu waay li ma wax dafa leer lu Bougane ak ña fay liggéeyee lu président ak ña fay liggéeyee moom moog Bougane la nan dem leen seen problème ñoom ñaar jeex tàkk. moom ñoom ñu ngi liggéey ak moom tey jii li Bougane di yëngu ñoom am nañ droit jàppale ko si xaw ma nag ñu si xaw ma nekkuñu si. mais mbooloo daal mooy doole waaw góor jàpp si góor góor àgg fa yàlla waaw ñoom buñ ko jàppalee tamit ak ñooñu ak askan beeg ñi nga xamante ni tey jii ñu ngi ko bëgg buñ ko jàppalee ci kaw si kanam rek ñooñ tamit am nañ droit jàppale ko parce que ñoom ak ñoom ñooy liggéey waaw ku nekk tamit gën a jege gën a yaay waaw ñoom moom lañ gën a jege kon am na droit far si moom waaw ñoom seen yoon war ta mën a nekk si xoxatal bi nag waaw mais tamit ñoom am nañ droit tamit wax si parce que fa la ñuy suturloo ci lañ yoree seen njaboot ñoom it n'est-ce pas kon am nañ droit tamit wax si waaw kon ñoom am nañ si plein droit. man ma defalut ma waaye maa ngi gis lu muy def ci réew mi bugaan politique am du politique wax day dem de jëf day dimbale doomi aadama day liggéeyloo doomi aadama yi day jàppale doomi aadama yi te yàlla dongoo tax mosta liggéey ci nguur te li muy defal doomi aadama yi am na ñuy liggéey ci nguur gi sax defuñ ko. ndax fu problème am bugaan taxaw na fa génne na ay millions am def ca kon télé bi ay sénégalais yi ñoo ko moom ñoo ciy liggéey ñoo ciy jëriñoo kon nañ ko dimbale ngir yàlla ak ji nañ sekk ak bugaan ak politique mais télé bi nañ ko bàyyeeg sénégalais yi. boo leen kii liggéeyal bugaan ak ki bokk liggéey ci liggéey bugaan seen yoon nekkut ci politique ñoom télé bi lañ am ak soxla ak rajo bi bugaan moo am ak politique soxla nañ dimbale sénégalais yi te yàlla tax. ñu bàyyi tele bi mu liggéey ñu bàyyi ñiy liggéey ñu fay leen. télé bi karij ba suul ko nag continuer politique am dana ubbi téeméeru télé ndax Sénégal yëpp ànd ak Bougane day jëf te yàlla tax de joxe alalam de wax nit ñi lu wér lu wóor lu ñi mën a dégge man loolu laa xam ci politique. waaw bisimilah yàlla nañu yàlla jàppale ñu ñëpp.